basuma basuma mbare tey foog ma dellu si samay waxtu ndax boo fanaanee ci ay wax ak ay ñaan foog nga ñëwaat ci wax ji te duma dellu ginnaaw samay wax je signe je persiste waaw entre Brexit BRICS xam nga lan mooy différence bi ñoom ñaar mooy BRICS mooy moom sa bopp mooy au niveau économique Brexit mooy moom sa bopp sama réew comme waa Angleterre ni ñu def BRICS ak World ñoom ñooy xuloo seen xuloo maanaam xaalis yi ñun suñu CFA ak euro bi ñuy bàkkoo dollar la tudd amuñu CFA dollar la euro ça n'existe pas dollar la loolu la Russie xeex defar BRICS loolu la makki Sall nekk espion bi ci biir africain yi saa balaa ñoo dem réunion sur le BRICS Macky Sall day ñëw France wala bu jógee réunion day ñëw fii moo tax léegi bu demee fële fële ñu réunion yi moromam africain yi dañ koy moytu loolu ça passe problème bi mooy yéen ñi micro sëriñ si yéen ñi sëriñ si di fay pour ngeen wax sëñ Moustapha Sall yu a jëf grand frère su may wax ñu bëri comprendre ñu <laughs> di mais jërëjëf mag ndax sëñ Saliou moo la téye woon sa téye sama loxo jox ma la fajar yow xam nga ma ñi ñëw sa kër démb présenté la ay vidéo naan la maani nii maani nii boo leen mënoon saaga saaga leen mais daleen leen dàq comme ay xaj man nee naa leen du ma ñooñu di wax ngeen yi dem taxaw ci internet bi di tontonteeg ñoom déedéet de man doomu bëkk néeg di tontonteeg man ndax mbàkke mbàkke du def yenn yi je signe je persiste je signe je persiste doomu bëkk nekk ñoo sañ def yenn yi tuuba mais Mbàkke Mbàkke du sañ du def yenn yi kooku maa ko wax maa ko waxaat te moom ngeen dam wax sëñ Moustapha Saliou non mu ne leen lagg leen aywa lagg leen lagg leen mu yónniwaat leen dem leen ci sëñ Muntaxa ci boppam ngeen won ko fa sama photo dina ree ba te gémmiñ gi ne leen kii suñu maam la kii yow dem leen ci sëñ Mountakha ngeen won ko sama photo wala ngeen dem kër sëñ Moustapha Bassirou si ñoom sëñ Cheikh Gaynde Fatma l'intellectuel dem leen laaj may kan fils de pute yéen da ngeen di ñëw nekk ci yoon bi di ci profito du lekk xamu leen si dara xam nga lan moo tax ma génn ci affaire sëñ Bamba diine nañu dem toog naa gàmmu gàmmu damay fanaan ak sëñ Moustapha Saliou ñu toog mais leer rek Cheikh Tidiane si fekk na ma fa sëriñ su bari fekk nañ ma fa man ñi jaay dëgg Sénégal ñëpp fekk nañ ma kër sëñ Moustapha Saliou fanaan nag ñun guddi amul lu ma xamul senegal on se calme on mais nag pour développer sujet bi foog ma dugg ci affaire u tàndarma bi ndax dafa jaaxal ñëpp sëñ Mountakha quatre-vingt et poussière année ñun ñëpp suñu biir kër suñu maam bu tolloo âge boobu dañuy naxanteeg moom defloo ko li ñu bëgg a def même buñ joteeg suñuy baay dañuy jaar si suñuy maam ba def li ñuy def kot Bali la femme la mooy jabaru sëriñ bi baali Aïda Diallo Marème Faye Sall Tamaro Seydi kan moo doon couvrir Marème Faye Sall commencement du maire Penda Mbow est-ce que boobu Marème Faye Sall daan na jalgati négatif mais léegi ñoom waa club Café de Rome ñoom maire Soxna Dieng jabaru sëñ Modou Kara ñooñu xam naa ay conseil technique di jaay révolutionnaire li ñu xam si dëkk bee bari nee naa leen bés bu ma duggee ci combat bii rek dëkk bi day wax <coughs> ñoom du ñu pare seen li ñuy pare ay ñoom ay dëmbooj jëkkëram bokk ci mbakkiw gi ñoom ñëpp di doxee ay ndigal nu jox leen ay soi-disant ndigal kañ la presse bu gëj a jël yëfu Ousmane Sonko lu tax démb ñoom ñëpp jël ànd jël si demandoo vous ne pouvez poser jamais sa booy nee naa leen dootu leen doo gis nga li ngeen waxoon ci Sonko booy noppi rek noppi rek ñuy xeex depuis deux ans ngeen nax jeunesse bi ba yéeg ko bii paa doo leen yéeg passif passif moo leen di yéeg. gënu leen maa xam sëñ Mountakha Mbacké daf maa jiite julli ma màgg biir kër sëñ Moustapha Bassirou Guédiawaye gënu leen maa xam sëñ Mous sëñ Mountakha ñun fajar man daan jiiti bu daan ñëw ci penc mi lay toog di foo ak ñun bi ñuy xale ñun sëñ Mountakha ñuy tey. kon gënu ñun daf ñoo xam suñuy tour par tour Pi le milliardaire fils de Balla sëñ Muntaxa suñuy tour lay jaar pour wax leen ñaar si biir koñ gi ñu sëñ Muntaxa xam gënu leen maa xam kër gi de mais kër gi am na fu muy toll mafia bi wër kër gi la ñuy lekk ak seeni poos dañuy lekk ak seeni poche dañuy protéger Touba ñu ne une ville sainte ku fa tëdd suuf si ban suuf moo lay dugal àjjana yéen xam ngeen Touba armement yi ñi man boog man arme yi ma am yëpp Touba laa ko jëndee pour commencer marché occas foofu mënoo fa dugg deux heures de temps génnee woo fa gon c'est impossible Cheikh Abdou Bara Dool yow sa baay Mbàkke Mbàkke la mais moo andi forot mu dugg ci ay Touba politique ak furut moo tax yéen ñaar boo leen mel nii di jaaxal kenn dem leen ba ñiroo wala ngeen fëgg seen bëkk néegu bàyyi ngeen xam kan moo ci jur kan kan moo jur kan def leen ay test ADN allez faire foutre nee naa leen du ma Sénégalais yooyu di wax ngeen ni kañoon kañoon maa leen gën a ëpp fit te su ma wàcc woon tey Sénégal damay taal sama oto ñëw ba Touba fu mu yem neex secret yi daañu ñëw de dil yi ngeen di teg boo yëpp daañu ko teg ba seen waykat yeeg boo yooyu mbaay ak ñële ñoom xam nañ lu xew balaa ngeen daan yeg seen podium yi naan Seydina Mohamed Seydina tak ngeen ni def gars yi Pikine ngeen daan ñëw faal dóor seeni juin yi ba ne yëpp ñëw technique ñi ci sëñ Bamba beneen booy bi day sinif ay koogum toog naan la sëriñ Bamba ci géej gi sëñ Bamba góos fekk da ngeen ni sinif man li ma xam ci sëñ Bamba tax ma dellu Casamance dellu samay mam xam ne du ma jullit du ma murit quatre-vingt-quinze pour cent des murit du ñu jullit du ñuy murit quatre-vingt-quinze pour cent laa lay du ñuy jullit du ñuy murit am na xasida yoo xam ne ku ko ci liiroon ci ñoom da ngay daw génn mos naa ci saaga ñit mu ne ma xamoo sëñ Bamba bi nga ko xamee laa nekk ñeseen ndax moo gën a oyof ci man lu ma ko waxul amul mais toog ak sëñ Moustapha ba xam kuy sëñ Bamba sëñ bi am na xaside boo xam kenn du leen ko wax dafa la ne sa doom bu jëliwul fajar waxtaanal ak moom wax bu dëgër bu jëliwul tàkkusaan waxtaanal ak moom wax bu dëgër nga bu jëliwul tisbaar du mas bu jëliwul tàkkusaan nag rendi ko bul ko sang bul ko suul fu ñuy suul tulit sëñ Bamba ko bind ne boo deful loolu yow ëllëg bu keroog yow ma xiyam yow di nga jàkkaarloo sa doom ci waxtu yooyu mu tëb man ma xam ne dama nekk ci sëñ Modou Kara gi di yëngal di fecc ne man Baye Fall laa du ma julli du ma wóor gàmm googu ba tey laa ne man waaw pause matuma jullit ay góorgóorlu wante yu ñuy wax yëpp jullit boo war a julli amul si archifu sëñ Bàmbaa ngi feneen sëñ amul xaalis kan moo leen ko wax lors de son décès à Diourbel ñaata milliards la tubaab bi jël ci ay coffram andil ko seen bopp saisir ko def ko yëfi France ñaata milliards de de francs CFA ñaata milliards temps yooyu laa leen wax waxuma leen temps yi sëñ Bamba amul xaalis ki contribuer ci rénovation palais ki contribuer ci rénovation après la guerre mondiale am ñu ne sëñ Bamba amul xaalis sëñ Saliou lan moo tax ñu bloqué ay milliards ci ay compte ndax Macky Sall bëgg ko koy maral taatam ayo nañ leen dem tëb di dal bi nii dóor ngeen di def sénégalais yi waykat yi ngeen di gis oh tuxu boobu doomu Macky Sall la feeñ mais Ndeye Gueye xam na lu bari Sénégal sama sœur boobu maa ngi gis des fois day nekk si kii bi ñëpp dëkk kii Ndeye a ah, ñoom Moustapha Mbaye waykat yeeg xaw ma naka Mbaye ak kat yi mag yi ngeen di bëri gis nga waykat yi si way sëñ Bamba yëpp laa leen wax ku dul akasa majorité bi gis nga mbaay mbaay yi ngeen di gis ñu ñuy bëgg rey wax ci Serigne Touba di ñuy sinif ñi dañuy dóori seen i bon ñi dañuy dóori seen i kaas def parfum yi cher ñëw toog di yuuxu di way yéen ngeen foog leen ay saint quoi ñoom ñu leen di mën a wax naan ñii ñoo ñu mën a wax fi ñu jëm sénégalais réveillez-vous yàlla nekkul ci tuur nekkul ci kër te sëñ Bamba li mu wax xam c'est clair et fi raq aw ma doom aw ma jarbaat xam nga foofu fan la koy waxee dans la forme Sëñ Tuubaa am na ay doomu ak yëpp qu'on le veuille ou non mais dans la forme il n'a pas ça son sont les fils de Cheikh Anta Diop ñan ñoo porté combat Cheikh Anta Diop ana Cheikh Anta Diop ses enfants sont des métis est-ce que est-ce qu'ils ont porté le combat de leur père la panafricanité non ana ay doomu Amath Dansokho erreur boobu la suñu mag yi def takku tubaab métis bi day déraciné te ñeneen ñooy ay doomu Cheikh Anta Diop no mooy ñun mooy yéen mooy ñëpp gëm Serigne Touba bi nekkatul ci affaire di diine njaago yaa ñu gën a bëgg Serigne Bamba ñun léegi Bamba ci poche bi day dagg tabax kër bu yom doo fay impôt doo fay courant doo fay ndox sol sa di trafiquer drogue international secret yëpp lay toj nee naa leen bés bu ma duggee ci baal bi di ngeen weddi seen borom bés bu ma duggee ci baal bi di ngeen weddi seen borom. Guèye Guèye xam naa ni ku courageuse nag jigéen ñi bëri yaa leen gën senegal malgré le vent et la tempête. ngaa ngi ne cel ak fi la ñëpp fogoon. ak ni nga nekkee sa sëy gère loolu laa sekk ak yow sa sëy gère ci kenn dugal yow la ak sa jëkkër point yoonu keneen nekku ci umoo ko umu la yéen la yàlla boole point on avance mais yow xam nga bu baax lu may wax ñii di Serigne Touba ñuy toog di rab si télé bi ñenn ñi dem ni gis ñuy seetaan am ay vingt mille vues en live ñi ay vingt deux mille vues ñuy jubilé mafia bi lay toj tasar ku nekk dem. ay gànn mese rek yéen ñëpp laa leen wax mafia bi dañ koy toj ku nekk dem fen yi arrêté ñu dem ci dëgg nous sommes à l'heure du verseau toog ci télé bi di fen rek ratatatatat déedéet dem leen ci Serigne Bamba propagande bi doy na ay propagande Serigne Touba on a plus besoin de ces propagandes mensongères da ngeen naan xale mu eh murit nii lay mel murit du fen murit du naafeq Serigne Bamba nii nit ñi di daanu leer di wax ay miracle ci Jésus le miracle jeex ñu laar que vous êtes bato ba ca ba ca Gabon sëñ Bamba gore waaye tubaaba ñitte ak kax yelleefam dafa toxoon ci bato bi ñu xaalal ko place spéciale boo xam kenn du fa dem kenn du fa dugg ak daal kenn du fa def dara fa la doon jullee kañ la sëñ Bamba julli ci géej secret yi foog ñu génnee ko kañ la sëñ Bamba julli ci géej sëñ Bamba lu mu wax sama julli géej gi sama julli géej gi la wax ci bato bi y avait une place spéciale dédiée au cheikh pour l'heure de ses prières et l'invocation. <laughs> C'est une méditation. si sëñ Bamba si ci kaw bato bi la julli ci biir bato bi tubaab def ko prisonnier ba pare ak ak ak yellee fa mu respecté ko en tant que guide religieux sëñ Bamba bind ci xasida ne sama julli ci géej ga ñu sëñ Bamba dafa julli ci kaw ndox bi ay sénégalais woo pop pop pop bi muy dem ñu koy yóbbu exil si prisonnier bi yéen man xam nga lu ma métti Rasulullah bi ko yàlla di teg mission bi dëkk yóbbu Yatrib xale yi jël ay xeer dóor ko ko waay dóor ko ay xeer ba damm bañ bi mu dawati dem dugg ci roche ba sonn ba nelaw ci tànku Ababakar ba jaan natt matt muy ñaq ba moo yee Rasulullah ak ay yàlla yónni ay jargo ñu ñëw ndëg yónni ay loolu léegi ngeen bëgg ni sëñ Bamba yàlla teg na ko lu mu tegul kenn te sëñ Bamba di géwal ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa du saaba du taalibe géwal sëñ Bamba ne la ànd ak xaddiim xam ngeen luy luy xaddiim kuy xëy kuy xëy di cof di dellu maanaam ab jànk ku ñëw di bindu kër Mouhamed maanaam yàlla na ma Rasulullah nangu jël comme jànkam ay waay Mouhamed Mouhamed ma la bëgg jàpp si nga jël ma comme sa jànk loolu ko sëñ Bamba ñaan moo tax mu ne ana xaddim Rasulillah man la jànku man la mindaanu sallallahu alayhi wa sallam bëgg ne tey kooku ëpp grâce Rasulullah bëgg ne tey koko bu yàlla taxawoon moom mais où êtes-vous qu'est-ce qui se passe wala da ngeen ne yéen a ñu gën a xam sëñ Moustapha Saliou Mbacké jërëjëf mon grand jërëjëf dinaa wax ndax foog ma wax newoon naa leen bés bu ma duggee ci wax ji rek di ngeen xam ne man réeroo maag dara Serigne Moustapha Saliou Mbacké dara moo tax yu bëri dum ci nangu dugg ci ay sujet bi nday dawee bàyyi daw ñëpp daw sëñ Moustapha taxaw jël ay responsabilité réglé leen jóge Casamance ñëw kasoog fépp fu ñu ma jàpp sëñ ay taxaw jël ay responsabilité otoog lépp sëñ Moustapha koo koy sëriñ koo xam adduna boo jaaxle mu fekk si la koo xam adduna bu sa poos bënnee mu ciy def ñu dàq ma enseignement ma wax ko ko mu ne la ñaata la cent quatre-vingt-quinze mille calculer leen 2009 ba 2012 kooku dajale teg ko sa loxo kooku faalewul faalewul Sénégal kooku faalewul Macky Sall dafa am intérieurement am dafa calme moo tax tout le monde était étonné waa ji nu muy def ba résister déedéet j'ai quelqu'un derrière moi te si sëñ Moustapha Sall te démb la jël ay responsabilités am ci loolu ndax dañ dem wan ko samay vidéo yàq seen bopp Mbacke jërëjëf yow de meloon ni ñoom ay dóor ak ay diil nekkoo ci moo tax kenn ñemew la kilifa yu bëri fekk nañ ma sa kër ñu ngi ci ñàkk kerse yëpp ku ci mel ne moo Jóob de Kura de ñëw di raax ñu ne ko na joge jóge ay narkat si ay fenkat lañ ñoom ñëpp ay franc-maçon ñoom ñëpp ay franc-maçon ma jàmbal sët waay juróom ñaari yi astafurlaa waay maa ngi live kawe taame xaram ji di astafurlaa message yi tàndarma ji na Sonko jël ay responsabilités Sonko signé kayit googee ne la nga noppi wala nga egli exilé wu bu deux mille vingt sept temps ñu régulariser dëkk bi fel kaneen deux mille vingt neuf bu la neexee ñëw bokk exil pour raison médical signé loolu moo gën nga lekk tàndarma bi sëñ bi xamul fu ñu jëndee tàndarma bi du moom moo yóbbante andi tàndarma ci pour muy clair xamul fu ñu jëndee tàndarma bi du moom moo andi tàndarma ji ñaari nit lañ ma wax ne ñoo andi tàndarma ji amagum ci lu ma leer ndax mënoo ji ñaari nit benn boitu tàndarma la du ma wax lu ma wóorul sëriñ bi jëndul tàndarma demul boutique tàndarma xamul fu ñuy jëlee tàndarma sagam moom nag la xelam dem ñu jël jox ko tàndarma mu jël bés bu leen politique jayee yow Ousmane Sonko yow laay waxalaat de ci yeewi askan wi lii laa la waxoon kili gii ñoo ñëwoon wër la ne la Macky Sall mënul la dara sëñ Mountakha joxe na ndigal dëgg rek a neex yàlla bu doon Ousmane Sonko Sonko keso keroog bu muy génn prison bu doon politiciens yi ñëwuñu ko wër gaaw te xool leen dil bu ñu tegoon Sonko bi muy génn prison sëñ Axma Mbàkke politiciens yëpp a dajaloo ñëw jël si ko pour mën a fay coow li gars yi demaat leen xool vidéo yi jour boobu laay saaga ndey ba boole ci saaga ndey Sonko ci boppam ne ko lii nga def nii tey nag Macky Sall dina la ko def ba wis la dem leen ci live boobu c'est dommage que passe boobu dañ ko jol dem sama live boobu jour boobu yéen ñëpp laa saaga ndey parce que fëg Sonko ay den boo jëkk amet ay dëkk ñëpp laa boole saagandoo ndey pour muy clair ndax je mu suis dit que Sonko yeew nañ la def la comme Mamadou Dia gis nga lii nga may Macky Sall tey dina ko am sa kaw dina la yéeg ba nga xam ne Macky du nit mais boobu bi may wax samay rasta MFDC la bokk waa Casamance la gëmul ma tay bokk Casamance ndax Casamance ci dëgg lañ nekk tàndarma gi nag c'est le tàndarma du sacrifice soit waxiw dugg ko la daloon rasulullaay dal ko tàndarma bi ñëw na ko diw moo ma joxe diw moo ma joxe lii ax lii ax lii la ci def tel sëriñ moo ko def tàndarma bi Inde la jóge jógewul Arabie Saoudite fay Faye Mansour fay waxal sénégalais kan nga jox tàndarma bi ba ñu fexe ba sëriñ bi jot par quel nga jaare ba sëriñ bi jox si tàndarma bi tàndarma bi de maa leen wax ba waxaat leen ay kees yi kees yi kees yi kees yi kees yi tàndarma la dem leen xool ci keesi yi bi injaam la te avant weeru koor gi lañ ko foo dugaloon étiquette bi indian la booy li yëpp c'était calculé keroog lan laa leen wax si live metti metti dinañ génnee Sonko avant màggal avant gàmbu pour sauver seen jour bu ñu ci jogee nag contumace ñëw ñu ngi ci nag on y va des fois je me demande politiciens yi est-ce que ñoom bu ñuy bokk ci li rey Sonko ils le font innocemment ou c'est des complices c'est ça que je me pose ces questions est-ce que ñoom Habib Sy ñi es ce que demee ñu ay innocence wala ay complices lañu wala ñoom je que du ñu je pense qu'ils ne sont pas collés carrément à l'état ou au service de renseignement Aïda Mbodj moom sii ndax jëkkëram yàggul dara gis nañ ko ci tunnel yi moo xam Marème Faye Sall xam nga rek ci ay waxtaan yooyu loolu ça ne fa concerne pas c'est son mari et Aïda Mbodj qui fait la politique man toujours damay différen différencier loolu li may tëjee mooy màggal ngeen jëm comme Serigne Touba wootewul màggal gi alhamdulilahi rabbil alamin magu naafiq yi wuroon seen Fallou ba wooteloo ko màggal gi am na ci benn góor gu mag pour développement suufu Touba ak récupérer lu bëri tuuba ñu toog ak Senghor trouvez-vous normal suñ bàmba ne ku nekk fi nga nekk nag moom fa sant la suñu borom au minimum mille litres de sang day tour Touba chaque màggal affaire bi muy gën a développé est-ce que yeneen xalif yu ndaw yi xam nañu Senghor yan gage ak yan pacte la jël ba tax am fitu toog na leen ñoom ku fi fal ñoo ko falu ñoom moom Sénégal lu ñu wax Sénégal ñooy am malgré ñu fi majorité est-ce que wax nañ leen yan sacrifice la ñuy def si suuf soosu ak renouvellement sacrifice annuel yi te pourtant sëñ Bamba dafa ne woon santale leen ma yàlla fi ñu nekk Senghor a trop écrit merde Senghor a trop écrit ndekete Senghor a trop écrit journal intime am Senghor a trop écrit ndax yenn yi man dem ko yëg sama dépasse Senghor a trop écrit màggal gi tey ndekete demoon tey juma Jurbel fi nga xam ne fa la sëñ Bàmba teg seeram yaramam dox fa tànku neen waaw waaw tey foofu la mbàgg màggal gi ëppoon viis mu ngi mel ne rek Europe ak Vatican franc-maçon yi fexe ba jël seen secteur ne dëkku diine la xërëm gaa ngi bëgg a ëpp doole te pour lan lépp di feeñ nga gis sëñ bas Abdou Khadre même pas cinquante ans am fitu ne ko fi falu sëñ te waar a fal eh, eh, yéen ñëpp kenn sañul bañ bañ si suuf lijjanti leen lan moo tax ñu woote màggal gi gars yi sëñ Bamba mosul woote màggal ne ñëw leen fekk si mu Touba màggal santale leen ma yàlla la ñuy wax ndax lan moo andi màggal Touba bi entre Senghor sëñ Fallou ak beneen góor gu mag goo xam ne moo installé système bi biir Sénégal Père Ablaye Bathily am nga ci lu la leer waxal ñu bëri am nañ ci lu leen leer waxal xam nga dafa am ñu commencé yàq der di dugg ci ay détails yoo xam waruñu si woon dugg nee naa leen gis nga man xam nga kan ngeen di sant yàlla si man ma mer war live saaga seen ndey parce que quand je quand t'es énervé tu viens argument foog nga daggal ndey gars yi wàcc seen niveau saaga seen ndey ñëwaat yéegalaatal niveau bi mais jëmmi sëñ Bamba sëñ Bamba tax may wax jëmmi sëñ Bamba jëmmi sëñ Bamba vérifier leen bu baax lan moo tax ñuy woote màggal ak nag yi gëlëm yi gis nga deret bi rek la ñuy soxla Touba yëpp xonk chaque année Touba di gën développé chaque année ñoom ñu teg laa mi mise bàyyi faalu ñu ngi nii di dóor ñoom naqari na leen kenn sañu ko faj ci des business pour Senghor falu il fallait que mu installé un deuxième état Mamadou Dia bind na ne Senghor les religieux là ne peuvent pas accompagner la politique parce que tôt ou tard ñoom ñooy jaxase Sénégal tôt ou tard Sénégal buy tas si les chefs religieux là lay jóge y' a pas de chef religieux y' a que l'islam moom du def ñu naroon imposer li amoon ay manek fépp ne leen imam ratib kese mooy am imam ratib mooy wax. ça est clair moom la jël si programme am il a été clair affaire kër yi gëmu ko il a été avec Sëñ Fallou. te bi muy wax ak sëñ Fallou itam too jël carte gi il a été très clair ak sëñ Fallou yow toogal sa diina nga bàyyi ñoom suñu état ñu géré ko ñun ñoo koy changé suñu bopp. Touba dañ koy def département comme yëpp jëlee ko ci village mais ay naan ville nii ñoo ko moom nii Mamadou Dia il avait refusé de signer ni Touba superficie boobu kii sëñ Fallou ko moom Mamadou Dia il avait refusé soin clair foog ñu wax dëgg yi muy Senghor ñëw nangul leen ne yéen a moom Touba nangul leen yëpp ba signé leen jox leen décret pour màggal màggal gi c'est sur décret. décret moo teg màggal gi du ay ñi ta ko teg di décret moo teg màggal Touba yéen itam sëñ nekk na fi ñaata yoon est dafa amoon ay moo amoon ziar <laughs> booy jàngi leen histoire gaa yaa ngi leen di dóor ay ñoom Cheikh Abdou Bara Dolly sama maama sama maama yee eh. man Cheikh Abdou Bara dool ne xale bu la jéemi bu la tooñee da nga koy jéggi di ma bàyyam yow nag moo tax ma jéggalu du ma sa bàyyi te xam ne sa baay yow ak moom papaam ak xalif général des mourides ak sëñ Bamba si boppam bu dul woon soxna jaara Bousso bokk leen maam jaara la affaire bi du yéen réglé leen foog ñu revenir à la raison soxna jaaratulaay la li ñuy concentré wu ci sëñ bamba yëpp sëñ bamba ci maam jaara la wax newaat maam jaara maam jaara man philosophie boobu laa am sama papa mënul am dara si man sama yaay bu soxlaa am sama yaay bu soxlaa am sama yaay bu soxlaa te am malgré ça ma réticent mais sama yaay bu soxlaa am foog ñu logique xam fu ñu jëm may mënu buso baal ñu àq ñun murit ndax yéen busoo bi yéenay jiite mbàkke yéena leen di sang néew yéena leen di may jabar yéena leen di may doom kii nag li ma la wax rek doom yi bëkk nekk la moo tax mu sañ la wax yi ma wax mais bu bokkoon kër mbàkke wu amul fitu wax moom mooy doom yi bëkk nekk a tax may mun man dimension maam jaara ak Mariama laa yemale moo tax keroog bi mu ko laalee bi may fippu tayuma ko may mun a yaa tax keroog ma dekkoon ci kaw gars yi nii yaa tax ma dugg nii ci combat bi yow mi ñu laar te mu te mu leer ma ne yow yaay meññeenteefu mbàkke mbàkke yi bu dul woon ak yow tey ñii du ñu am sëñ Bàmba du taxaw maam jaara Buso jërëjëf maam jaara Buso jërëjëf maam jaara Buso di sant ñëpp di gërëm ñëpp xeex bi dañ koy xeex Sonko du lekk tàndarma bi ndax bu ko lekkee ab légume lay doon problème mu neurologique la commencé am boobu c'est très sensible du ma ci dugg ba ngoon incha allah suñu gars yi jëf restez fort et restez courageux tey heure maam seen laa jël maam seen maa ngi sa heure tey ñoo bokkoo